أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نيجي سنت يلا دي جل سيونان تنبي صلى الله عليه وسلم ورب تنبليك آية تيمير أجروم نعرف آية يوين تعويون ديمو في سورة آل عمران yalla di wax ne wala tahsibanna bul ndor wala tahsabanna batay bul ndor alladheena ña nga xamne qutilu rayef na len fi sabilillahi fi yoonu yalla am waatan ñuy way de balli am moy ñoom ahyaun way dund lañ dund go xamne nak and rabbihim fa borom la يرزقون دفنا ورسقل لين فرحين توي بقلن بما تلغى قمنا آتاهم دكين لينكو الله يلا من فضله تنغنيلم ويستبشرون تدن نبك بالذين تا سن بوك يا خمنا لم يلحقوا جوتي غنو بهم تي من قلبهم سن غناو انك لو مبير تي موي لا خوف ديت اك العليم عليهم دين ورق ولا هم تدين نيوم يحزنون ني يستبشرون دان نيو بك بالنعمه تي خيول الله غو بايكو تي وفضل اك غني لو بايكو وان الله اجنك يالا لا يضيع دسانك اجر المؤمنين فيغوي جميل الذين ويغم يغا استجابوا ويو لله نيل يالا والرسول اك يونتبي يونتبي وون لن سي ديغول يالا ني ويو ووتبي في جمونه قد جمونه جفه جفه من بعد ما اصابهم غناو با جوتنا لين القرح غومبا للذين نيل نا نيغا خن احسنوا رفتل نان منهم تي نيوم واتقوا تني يالا اجر عظيم فايغو ماغ aaya yi day bégal mboolem ñi xeexal lislaam ba seen bakkan des li ñuy tuddee shahaada di wàccuwaay bu kawee fa yàlla kon shuhadaaw yi la yàlla wax ne bul njort ne doonte dee nañ yaa ngi gas di leen suul wala rey nañ leen yaa ngi gas di suul sa dëgg-dëgg deewuñ bu leen leen jàppee mukk am waatan ñuy way dee ndax ña ngay dund fa yàlla seen boroom ña dund fa yàlla dund koo xam ne mucc na ci nax naxi àdduna ndax dund nga ind rabbihim ña nga leen di wërsëgal waxut lu ñuy wërsëgal loolu day matale lépp luy wërsëg lépp luy ak texe luy ngërëm ña nga leen koy jox ba ñu doyal aay bi nag am na ñu ne ñu ngi wàcc rek comme ci ñu ñu rey uxut waaye day matale mboolem xeex yi yonentu bi xeex ña ca shahid ak xeex yi xew ginaaw yonentu ba aduna tukki mbolem ñi ci shahid am na ñu wax ne mi ngi wàcc ci ashabu biiri mauna ashabu biiri mauna ab kurel la woon ci saxaaba yi mat ñeen fukk am ñu ne juróom-ñaar fukk yonent bi yónni leen ngir ñu jot li woote bi yàlla dem ci barab boo xam ne ku ñuy wax amir ibnu Tufail mo don kilifa ga don ko ban ñom nak dañu dem ba ci ben xunt ben barab bu xóot ci euh, ca pegg ndox ma ñu tok am ay gardi arab yu nekkon ci la ko jégué ñu né na am ñu dem wala na am ko dem jottali risaalaab yaronte bi yalla bi sallallahu alaihi wasallam ci wa dekk dëkkuwaay yi kenn ko bokkon ci ansaar yi ne ana uballigu risalat rasulillah may jotli risala bi yonentu yàlla bi sallallahu alayhi wasallam sallam koy jotli dem wote ne ya ahla bi'ri mauna inni rasulu rasulillahi ilaykum inni ashhadu inni ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa aminu billahi wa rasulihi leen yen wa barab bi di bi'ru mauna man maay ndawul yonentu yàlla bi jëm ci yéen woote bi du dara lu maa ngi seede ne yàlla kenn la yàlla rek ay yàlla muhammad ndawul yàlla la jaamu yàlla la ndawul yàlla la gëm yàlla ak yonentam bi lii la wax benn waaye génn cib néeg jam ko xeej jam ko ci wet ba xeej bi génn ci geneen wet ga rey ko rey mu ñaaw ñu topp ay tànkam xool fu mu bàyyi ko ba fekk mbokk mi may ànduloon ñu mat juróom-ñaar fukk wala ñeent fukk ci wax yenn mu arrixoon yi ñu rey leen ñoom ñëpp ci njiitul Amir ibnu Tufaylu leen rey ñoom ñëpp wax nañ ne alxuraan wàccoon na ci ñoom gannaaw gi mu nekk liñ luñ nas ko tilaawatan waaye alquran wàccoon na ci ñoom di wax ngërëm lu rëy loo xam ne yàlla gërëm na leen ko ñoom it gërëm nañ yàlla bañ ko wuy jee ñu ne lii it ñoom la wàcc waaye lii al ibratu bi umumi laf mboolem soxdaaw yooyu fu ñu mën a shahide bul jàpp ne dañoo faatu képp kuy xeex al islam kuy dund di taxawal islam di jihaadal islam ak nu jihaad mën a demee bu ca sa bakkan desee yaa ngi bokk ci bal ahyaun inda rabbi yurzaquuna farixiina ñu yooy kontaan bi ma aataahum allahu min fadlihi nga xam ne ñoom kontaan nañ ci xéewal gi yàlla jox ndax xam nañ ne xéewal gu réy gii lañ def lu met la muy joxe seen bakkan ngir yàlla waaye nag jarul lii xéewal gi ëpp na ko foofu moo tax bi ma aataahum laaw min fadlihi yàlla moo tibb ci ngëneelam sotti leen xéewal googu ñu nekk moom la ñuy yéene ñañ bàyyi ganaaw moo tax ñañ bàyyi gannaaw tañ nekkoon ca seenu yoon di jihaat yegg seeguñ fi ñu yegg si ñu ngi bég ci ñoom لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بقال قران وعي موي لا نجفون تي اي جف يو باخ امول لون تي تي دار دو تاساو يالا دا وات ليب فاي لين كو فولال لين كو لا نيو دافون تي اي ريتي ريتي تي امول لون تي جاك يالا دا لين ديغال ليب كون امو نيو خوف تي لا نباي غناو امو حزن تي لا تي سن كانام نيغي بك تي خيوال اك غنيل ak xam gi ñu xam ne yàlla daal sa dëgg-dëgg du sànq fayu ñi ko gëm aji gëm ji lu mu def rek ma ngay fekk ak fayam fa yàlla mu leeral ñooñu mu ne alladina stajaabu lillahi wa rasul loolu moo gën a dëgëral ñu wax ne ci uxut la wàcc uxut wax nañ la waa màkk yi ba ñuy ñibbi ba ca yoon dañoo yeddante ne laa muhammadan qataltum wala alkawaaciba ardaftum bi sama sanaatum irjaw yéen yéenay xeex ba gañe ngañaay lii Warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad jekkale ko mook ay àndandoom dugg Madina defal neex ba bi al faysala mooy li Muhammad ba faw xeex du am waaye reyu leen Muhammad jàpp leen jigéen ña ay jaam waral leen seen kaw gilem ya mooy maanaa walal kawaaida ardaftum ne def ngeen lu bon kon ñu defi ci qulubi kafaru ru'ba sànni tiit ci seen xol Abu Sufyaan ak ñoom loolu ñëpp tiit daw dem ñibbi balaa la leen di xew waaye yonent yi yëg na loolu ne gaañaa ngi bëgg a wàññeeku mu woote waat mu woote ana kuy wuyu yàlla ak yonentam bi ñëw ñu toppi leen ba mu wootee nag ña bokkoon ca njëlbeenu xare ko te wàññee ko ak ñi demul woon te amuñ gànt ku ci bëgg a ñëw dalaa dalaa la déedéet ñi ñi ñi teewoon ko dong laawoo ñi ci def bu kenn ñëw léegi bi ñu demee Abu Sufyaan yëg ne Muhammad a ngi ñëw ñoom it ñu gën a tiit ne ñii jàppoon nañ ne dañ leen war a jekkale mënatuñ dara talatuñ dara ndeke ñoom ñi ngi am fit ak doole yi di ñu jéem a dab loolu stratégie bu rëy la ci guerre wan noon bi ne ko doye diwuma ragaluma maa ngi ñëwaat ci sa kaw nga xam ne bi ñu leen di woowaat pour ñuy demaat noonu dem nañ ba rawaxaa te boobu ñu ëpp ñoom ñi ngi am ay góom ñii rey nañ ñu leen jege moo tax min ba'di ma asaabahum gannaaw bi mu leen jotee alxarxu góom bu metti ca Uhud lilladina ahsanu minhum wattaqaw ñaam ihsaan ak taqwa rafetal te ragal yàlla yàlla ne am nañ ajrun azim jamono jooju nag Abu Sufyaan mi ngi doon def ay pexeem yónni na ku tudd Nuaym ibnu Mas'ud ne ko demal ca Muhammad a gaayame ne leen waa Makka dajale nañ mbooloo mu kenn mës a gis waaj nañ waajtaay wu rëy faxel bañ ragal ñu demal nga ragal looleen kooku ñëw wax leen ñu ne ko xasbunallahu wa ni'mal wakil moom la yàlla di kañ ne alladina ña nga xam ne xaala wax na lahum ñe leen annaasu nit ñi annaasu maanaam waa màkk wala ka waa màkk yebal muy Nuaym ibnu Mas'ud ne leen inna naasa naka nit ña waa màkk xad jamau dajaloo dajaloo nañ lakum ñe leen dajaloo nañ lakum ngir yéen kon faxshawhum ragal leen leen fa zaadahum loolu yokk leen imaanan ak ngëm waqaaloo ñu ne nun xasbunaa doy nañu allahu yàlla wa nicmatu amul moroom alwakiil yàlla mi ngi sukkandiku yàlla rek kay kenn yàlla rek ma ragal mu wax baat bii nga xam ne moom la yonent yàlla wa waxoon alayhi salaam bañ ko bëggee sànni wala bañ koy sànni ca safara sa xasbuna allah wa ni'mal wakiil yonentu beeg ay saxaabaam biñ demee ba seeni noonu mel ni jekku nañ leen ñu war a songoowaat ñu leen di tiital nañ toll ak nañ waajee baat bi lañ delloo si xasbunallahu wa ni'mal wakil moo tax baat la bu am solo ci dundu jullit rawat na fu jullit nekkee ci ay xat-xat fu jullit nekkee ci ay jafe-jafe fu ay pexeem jeexee fu mu yaakaaree ne dana ñaaw xasbunallahu wa ni'mal wakil waaye nag taarraf ila allahi fi shidda wala fi raqa yaarifka fi shidda loolu yontu jàngaloon taarraf ila allahi fi raqa ba ngay am jàmm am xewal am tawfiq ragalo dara góorgóorlu ci yàlla na ndax allah wa ni'mal wakeel di beuri ci saw làmmiñ waye lolu moy tax ëllëg bu jafe-jafe amé boko waxé yàlla wuyu la taaraf ila allah fi raqa ya'rifka fi shidda abul hadar ashad li ci wàllu yàlla yu magi baat yu fonkon la dan ci tarbiya ay taalibeem di len ko sikarlo ay lim tolni ay 450 muy ñent témèr ak juróom fofu wala 1450 junneeg ñeent téeméer ak juroom fukk wala lim ba gëna mag 4450 ñeent junneeg ñeent téeméer ak juroom fukk fanqalabu ñu wëlbatiku biñ dëppaatee di top wa makka tital nañ leen wa makka daw nañ ñëwaat nañ ak jaamu kenn laalu leen kon fanqalabu walbatiku walbati bi nicmatin ni'matin anda qawl min allah gu bàyyeekoo ci yàlla wa fadlin ak ngeenel lam yem sasum te suun ben ñaawteef lañ don ragal lo dara du ge deug wattabaxu top nañ allah ngërëmal yalla wuy nañ yalla ak yonent bi loolu moy maye ngërëmal yalla wallahu yalla bu fadlin borom ngeenel la azimin lu mag. wallahu yalla bu fadlin azim borom ngeenel lu mag la borom bi ne innama dalikum naka kooku seen kalan doon wax naan annaas inna naasa qad jamcu lakum kooku du dara lu dul ak cheytaanu cheytaan rek ko ko yebal kañ yebali muy waxi lu dul dëgg di tiital jullit ña di leen ragalloo kooku ci liggéeyu cheytaan la nekk moo ka ko yebal ñoom ñëpp ay cheytaan lañ kon innama dalikum naka wala déet kooku ak cheytaanu ndare muy cheytaan yu xawifu day ragalloo awliyaahu way méngóom kooku cheytaan la di tiital di ragalloo ay awliyaam cheytaan dafa am ay waliyu ni mu amee awliyaullah noonu la amee awliyaa cheytaan fa qaatilu awliyaa cheytaan yàlla joxe na ndigal ci xeex leen ak awliyaa cheytaan wax na xisbu cheytaan ni mu amee xisbullah am na ñu jàkkaarloo ñoom mooy xisbu cheytaan na awliyaullah awliyaa cheytaan li hada waliyullah wa daaka waliyu shaytaan falaa taqaafoohum bu leen leen ragal wa xaafuu ni ragal leen ma man yàlla in kuntum bu ngeen nekkee muminin di wéy gëm bu leen leen ragal ndax matuñoo ragal ragal leen ma man yàlla rek maa mat ragal in kuntum bu ngeen nekkee muminin di wéy gëm gëm yàlla gu mat mooy tax nit ki ak ragalam mu tàmbalee ko yemale ko ci yàlla boromam ak ragal yalla wara war war cee nit ki li mu am ci ragal yépp da ko wara a boromam baña ragal lu yalla wala yuhzinka bum la jàqaloo bum la yóbbee aw njaqare bum la naqari naqar wu mujj doon njàqare alladina ña nga xam ne saare yusaariuuna dinañ njëkkante fil kufri ci ak kéefër ñu jàpp ne ñoo xam ne dañ doon murtad di bàyyi lislaam di dellu ci kéefër déedéet bu doon loolu la kon yusaariuuna ilal kufri waaye na fil kufri ay yéefër lañ dëkk ak yéen jamono ju nekk ñu bëgg leen ñaawal di fetteerlu di jëf ak a wax luy wane na ñoom ay yéefër lañ luy wane seenu weddi gu tar ñoom la yàlla wax yonent bi te yonent bi daa bëggoon xër lool ci na ñëpp gëm ndax ñëpp texe ña nga xam nag fu yàlla ak yonentu waxee ñu weddi luñ digle duñ def luñ tere ñu duñ bàyyi loolu la koy wax ne wala yuhzunka bu mu la naqari bu la jàqaloo alladina nga xam ne yusaari'una ñooy njëkkante fil kufri ci ak weddi yàlla loolu ñuy def innahum naka ñoom lay yadru duñu lor allah yàlla shay'an dara seen bopp rek la ñu lor يريد دنا من الله يلا الله يجعل مو بني رف لهم يلن حظا بين تشرب يو في الآخرة تاع الآخرة ولهم تنيل لن عذاب عظيم مبغل مو يلا ملن باي تلولو لول فم جم نيوم الآخرة دون فا دارا لو دون فا دارا لين دي لين دي بيغلو لن عذاب عظيم مبغل مو مت مبغل inna alladina naka ñi nga xam ne ishtaraw jëndee nañ alkufra weddi yàlla bil imaan ci gëm ñoom it lañ yadurru duñu lor allaha yàlla shay'an dara wala hum te ñeel na leen adabun alim mbugal mu metti ñi nga xam ne it woote lislaam yegg na ci ñoom ànd ak ay mandarga ay bayinaat ay aaya yu leer nañ yu koy dëggal waaye njariñal àdduna tax na nguuñoo gëm ñu dëgg leer ñoom ñu nekk ci neen ngir seen intérêt ñooñu lañ yadru la shay'an duñ wàññi yàlla dara duñ lor yàlla dara mooy ñi nga xam ne dañoo waroon a gëm waaye gëm nga dañ koo jëndee ak kufru dañoo joxe seen gëm jël ak kufru ishtarawul kufra bil iman lan yadrullaha shay'an wa lahum adabun alim wala yaxsibanna te bu mu jortu it alladina ña nga xam ne kafaroo wedd nañ annama numli naka danañu yeexe al imlaau mooy at taqir yeexe la lahum ñeel leen ne loolu xayrun aw yiw la li anfusihim ñeel seeni bakkan innama numli naka danañu yeexe lahum ñeel leen li yasdaadu ngir ñu dolliku isman bakar, seen bugal di gën a metti moo tax walahum ñeel leen bugal muhiinun may aji doyadal dal kon woy wedd yi yéeféer yi ku ci dund aw fanam di gudd muy am jàmm di am ak wér di am alal di am kàttan yooyu yëpp musiba la rek da koy gën a yokk ak mooy yàlla di ko yokk mbugal ëllëg walaa yaxsabanna bu mu njortu alladina kafaru annama num lii naka danañu yéexe lahum ñelleen wala annama naka la nga xam ne num lii danañ ko yéexe lahum ñelleen loolu xayrun aw yiw la li خير جدا كقبر في مطرب الحاس يالا ني انما نملي ديت ني يعله نيلن ليس دادو ندار غير نان دل دوليكو اسمان بكار مول موي ليغي انما داي حاسو ني يوك اي بكار ولهم تنيل لن عذاب اليم بوغال مو مت لي خاو احد نك تي لا ديلوسي دي واخني ما كان نيكوت الله يالا ليذر غيرنا باي المؤمنين وي گم alaamaa ca la nga xam ne antum yéen alayhi nekk ngeen ci xataa yemisa ba dana ràññale alxabiisa aji bon mooy ab munaafiq min a tayib ci aji tey ñi wax ne gëm nañ yàlla alladina qaalu aman na te am ci ñoom ñoo xam ne amuñu ngëm ay munaafiquun lañ am ci ñu gëm-gëm gu dëggu ñoom ñëpp ñuy ànd di julli ci gannaaw yonantu di ko topp ci xare yi bu wootee ñu bokk teew yàlla du leen bàyyi noonu ñu nekk ci ak lënt faw mu ràññale ba ñëpp ràññee ñan ñooy munaafiqoon yi ak ñan ñooy muuminoon yàlla nag ni muy ràññalee naafeq yi ay melokaan lay joxe ku ni mel rek yaa nga ca biir kon maakaana nekkul allahu yàlla li yadara di bàyyi almuminina way gëm yi jullit ni alaama ca la nga xam antum yéen alayhi nekk ngeen ci xabtaa yi ba dana ràññale alxabiisa aji bon min a tayyibi ci aji tey waaw ndax bu leen yàlla bay woon noonu xamu leen xaybu du ngeen yër xolu jàmbur bay xam lam fas ak lu mu fasul wa maa kaana nekkut allaahu la yàlla li yutlaakum di leen yërloo alal xaybi ci lu nëbbu la alal xaybi ci kumpa ga walakin allah waaye yàlla yejjita bi dana tànn min rusulihi ci ay ndaw man yashaaw ku ko soob yàlla dana tànn min rusulihi man yashaaw ku ko soob xamal ko lu nëbbu loo xam ne day wóor ne ci xam-xamu yalla ci xamalu yalla rek la kon napi yi gar julit ni wax nañ ko ay yoon bu fekkone ne sa buñ day melni badar kon naafeq yi danañ gëna leunt gëna sibir bir ci bir julit ni ku gëm ak ku gëmul ñëpp dinañ wuy ci yoonu waye nattu yi ñu xamne ñun kat ndege niñ mëna a suñu non di gañe gañe lu reuy non lañ ñu mëna a di ñu ray loolu mooy tamyiizul xabiis min at-tayyib fa aminu gëm leen billaahi yàlla wa rusulihi ak ay yonantam wa in tu'minu bu ngeen gëmee <clears throat> wa tattaqu ngeen ragal yàlla fa lakum ñeel na leen ajrun azimun fay gu màgg am ngeen fay gu màgg wala yaxsibanna bu mu jortu alladina ña nga xam ne yabxaluuna danañu nay bi maa ca la nga xam ne aataahum dikkee ni leen ko allaahu yàlla min fadli ci ngëneelam huwa moom xayran aw yiwla lahum ñelleen balli fi ne huwa moom charun aw xayla lahum ñelleen aaya bi day jàngale benn farata ci farataay lislaam yi muy azaga ak benn buntu ci buntu yiwi lislaam yi muy joxe alal ngir yàlla moo tax mu ne ñu yàlla jox ngëneel alal la ci jublu ñu yàlla jox alal ñu nay ci ba bu asaka waree duñ ko génnee wala bu ñu waree génnee xàq yàlla ci alal moo xam farata ji la comme asaka wala sadaqatul fitri wala kafaara gu ñu war a def ci alal wala lu ñuy def ci seen coobare di ko jokkee mbokk di ko dimbalee ku xaajowoo ndimbal loolu yëpp nay nañ ba duñ ko def nee na alal jooju ñuy dajale di ca nay buñ yaakaar ne aw yiw la ñeen leen de bal huwa sharrun lahum aw xay la aw musiba la ñelleel sa yu sa yu tawwaquuna sa yu def na ndombal leen maa alal jooj nga xam ne baqiloo nayoon nañ bi ci moom yow man xiyaamati bés pénc alal jooju ñu dencoon nay ca ba duñ ca joxe xàq yàlla ëllëg la leen di yàlla mbugalee mooy defal leen ko ay ndomba ay ndombay baat ay ndombay ndigg ay ndombay loxo tànk wërale seen yaram yëpp mu doon ay jaan yu matt doon safara suy lakk doon mbugal moo xam ne yàlla rek xam na mu mel moo tax mu ne sa yu taw waquuna def na ndombal leen maa alal ja nga xam ne baqilu nay nañ bi ci moom yowmal qiyaamati bés penc ñëw na ci xadis من صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم نه من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع شجاعا أقرع موي صحبان عظيم جان جو ري جو مغ جان جو خمنا له زبيبتان داي أم نياري بوب دي ما تيوت بنك بنوبي نان برم على جا أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك ما يسألل ما يلنغا دينجون lii la yonentu wax daal di jàng aaya bi walaa yaxsibanna alladina yabxaluuna bima aatayahum allahu min fadlihi huwa xayran lahum kon aaya bi loolu lay firi alal ji la yàlla def noonu bal huwa charrun lahum sa yutawaquuna maa baqilu bihi yowma alqiyaama walillaahi yàlla rek la ñeel miraasu samawaati ndonul asamaan yi wal ardi ak suuf maam yàlla moom rek fiy des min def yëpp danañ jeex wallahu yàlla xabirun aji dañ kumpala bi maa ci la nga xam ne taamaluuna da dangeen ko jëf li ngeen def lépp la xam aaya yi ci topp sababu wàcc gi sayidna abu bakar siddiq radiallahu anhu moo doon dem ba fekk mbooloom ay yahuud ñu toog di déglu benn waaye ku am xam-xam ci ñoom fin xaas mu di leen jàngal seeni téere ابو بكر ووقت في الاسلام نقول ويحك اتق الله واسلم فوالله انك لتعلم ان محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراه والانجيل نيكو اي غور في نحاس رجل يالله تدغو في الاسلام ما غنت يالله يو خمغا ن محمد ندول يالله لا اندل لين دغ غو بايكو تي يالله te fekk ngeen ca seeni téere muy tawraat ak injil ñu bind ko fa finxaas di ko tontu waxi kuy ñaawal ne ko wallahi ya aba bakrin ma bina ila allahi min xaaja ñun amul benn soxla ci yàlla yàlla ci boppam moo xaajowoo jëm ci ñun moo xaajowoo jëm ci ñun wa innahu ilayna la faqir maanaam yàlla li muy toroxlu jëm si ci ñun ñun duñ ko torox lu jëm ci moom ñun way doylu lañ wërif ko yàlla bu amoon dara du fi nekk di leb du wàcceel seen waa jooju man zal ladi yuqridullaha qardan hasana Seydina Abubakar mer dóor ko dóor bu tar ne ko walladi nafsi bi yadihi lawla alxahdu alladi baynana wa baynak la darabtu unuqak yaa aduwallah kóllëre gi ñu fasanteeg yéen ba du ñu xeex du ñu rayante moo tax waaye bu du loolu ma dagg sa baat bi tey Finhaas jóg dem wax yonent bi lii ko Aboubacar def yonent laaj Aboubacar ne ko waaw maa xamalaka ala ma sanaata lu tax nga def lii yaa Ababacrin Aboubacar ne ko yaa rasulallah inna aduwallahi qaala qawlan azima noonu yàlla bi dafa wax wax ju rëy zaama anna allaha faqirun wa annahum agniya nee na yàlla faqir la ñoom ñoo woomal moo tax fa gadibtu lillahi wa darabtu wajhahu ma mer ngir yàlla dóor ko yahud yahud yi comme jom bu ñoo wax lu dul dëgg finxaas weddi loolu alquran wàcc dëggal li abu bakari wax yàlla ne laqad samia dégg na allahu yàlla qawla alladina wax ña nga xam ne xaaloo wax nañ doonte kenn nay wax waaye mbooloo maa nga ànd di déglu di di d' accord ca la muy wax ñoom ñëpp ñoo wax kon laqad samia allahu qawl alladina qaalu inna allaha yàlla faqirun aji ñàkk la aji xaajo wala yemuñ ca ñu ne wa naxnu nun agniyaaw way woomal lañ borom bi ne sa nakk bu danañu bind maa wax ju ñaaw jooj nga xam ne xaaloo wax nañ ko daañ leen ko xisaab de di leen fàttali ñaaw te biir seeni maamaati maam defoon moo tax mu teg ca ataf ca wa xatlahum ak ray gañ rayoon al anbiya yonentu yàlla ya bi xëyri xàqin ci lu dëgg daañ leen bugal bugal mu tar ونقول درن وعال نيوم بوبا نان لين ذوقو مسلين عذاب الحريق بقولم لك أن لين وعنا ذوقو عذاب الحريق يهودي نك سبوتي اك واحد بون جيمي تي يالا اك يونتمي اك نا سين مامي مامي دان ديف دي راي يونت يالي القران واخنا جولي بري نيوم نودون واخ يد الله مغلوله برام بن غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa ànd ak nag seen xaas nii ak yahud yi mel ni moom bu ñuy wax lii gëmuñ ko de gëmuñ ne yàlla faqir laa ñoom dañoo doylu déedéet dañ koy wax ngir naxee ko ñi leen topp te jànguñ ngir yàqee ko seen xol ba duñ dugg ci lislaam képp lañ ci jublu kon yàlla dégg na wax yu ñaaw yooyu yahud yi waxanteeg Abu Bakrin ak fi mu jaar ak ñoom motax bi yahud bi waxee abou bakari wax yàlla wàcce alquran deugal li abou bakari wax li moo xew fasante ko war wara seq jàmm nak da cee wara bokku nga am ihtiram ci borom bi subhanahu wa taala moo ko kóllëre ak lu meuna deme demee diggante jullit ak dul julit def buy jalgate di gotti xàq yàlla ak yonente bi bi xëy ma kafara bi dañ ko wara ray yo yow jàng nga xam ko daalika loolu bi maa ci sababu la nga xam ne xaddamat jiital na ko ay diikum seeni loxo maanaam la ngeen defoon wa anna laha ak naka yàlla laysa bi wallaamin déet muy aji tooñ lil abidi ñeel jaami yàlla nekkul aji tooñ wallaam lu siixa mubaalaxa ab tooñaa kon kon day yor maanaam danay tooñ waaye tooñe tarul lool jàngoon nga ne faxaal dañ koy tëgg baat bi mu taxaw taxawaayu yaa nasab kon wama rabbuka déet sa borom wala wa anna laaha naka yàlla kon laysa bi dhallam déet muy ko def togn lil abid ñeel jaan ibnu malik non na wa maa faailin wa fa'al faal fi nasabil ama min al ya faqbil lol moy bi dhallam lil abid alladheena nga xamne qalu qaalu wax bu alxuraan dàq yàlla du tooñ li muy wax mooy yàlla ko maandu la te ak maandu mooy di fay aw yiw ñuy def lu rafet di mbugal ñu yeyoo mbugal mu continué di wax yahud yooyu seen wax ya ñuy wax ngir réeral ña leen topp dox seen digg ak lislaam alladina mooy ña nga xam ne xaaloo wax nañ ne inna allaha naka yàlla xahida ilay naa dénk nañu xahida dëhal na ilay naa ci ñun ahida ilayya kaza wa kaza mooy digal na ma dénk na ma nàngam ñoom nee nañ yàlla moo leen dëxaloon ca tawraat an eh, laa nu mi na ñu bañ a gëm li rasul ñel benn yonantu xatta yatiyanaa lu dul ju daf ñoo dikkee bi qurbaanin ci ay sarax yu ñu rendi taakuluhu dana lekk ko an naaru safara qurbaan mooy nit ki rendi ngir yàlla wala mu loj gëléem rendi nak wala xar bay ak lu ñuy rendi tour deret ngir yàlla wa ñom neenañ tawrat mo leen wax ne ku ñëw ne yalla ko yoni bu leen ko gëm li rendi wul ngir yàlla safara ñëw lak lola mu rendi mu war yàlla nanguna salaam bi hatta yatiyana bi qurbaanin taakuluhu nar yàlla ne qul wa hal tontu len ne leen xadd jaakum waaw maanaam bala ñoo jàll sax nag ñu xam ne loolu aw duur la wu yahud yi duural yàlla loolu yàlla waxut leen ko ci tawraat loolu lu xewoon la ay charia la woon njëkk lislaam maanaam daa bokk ci xewal lislaam nga génne sarax jox ko nit mu jariñoo ko yàlla nangu sa sarax nga am yiw waaye charia yi jiitu woon ñoom ku saraxaan bu yàlla nangoo safaraay ñëw lakk ko sarax kenn daaw ko jariñoo naka noonu màng ceeb xare ci jaglay lislaam yi la bokk yonent yi jiitu woon amuñu ko woon kon luñ duural yàlla la rek moo tax borom bi ne xul waxal ne xad jaakum dikkal na leen rusulun ay yonent yu màgg yonent yu bari boo jàngee balaa da nga xam ne rusulun dañ koo tankiir nakiral fii li taksiri wa li taadimi maa rusulun ay kasiirun wa idaamun ay yonentu yu bari yu màgg ñëwal nañ leen min qabli njëkk sama te yonentu yee bil bayinaat indi nañ ay firnde yu leer nañ ñi wa billadi qultum indi nañ leen lii ngeen di wax dañ daan génnee sarax teg safara ñoo lakk téewul ngeen weddi leen rey ci ñoom fa li ma xataltumuhum ana lu tax ngeen rey leen waaw bu dee ne ngeen yàlla moo leen daal lii gis ngeen ko ba noppi defu leen ko lii ngeen doon wax lii ngeen di wax nii di ko dural yàlla amoon na ngeen weddi yonentu yee yemu leen ci weddi waaye ngeen ray leen fa li ma xataltumuhum in kuntum bu ngeen nekkee saaraxandi way dëgg fa in kaddabuuka muy defal di muñ loo yonent bi ne fa in kaddabuuka buñ la weddee du yow lañ njëkk weddi faqad kuddiba weddeef na rusulun yonentu yu bari yonentu yu màgg min xablika la la njëkk yonentu yoo xam ne comme nii ko ko defee jaa u dikkee woon nañ bil bayinaati ci ay layu leer wa zuburi indi nañ ay téere zubur jam'u la ci zabur zabur daa yor maanaam maktub lu ñuy bind dafa waaw moo tax moo tax wal kitaabi ak téere al munir bay aji leeral buñ la weddee muñal la jiitu weddi woon nañ yonent yu màgg yu bari yu indi woon ay firnde yu indi ay téere te dundu gi yemul fi jaduna kullu nafsin bépp bakan da'iqatul maut aji mos ak de bakan yépp ay dee te bu ngeen de wa innama tuwaffawna naka defna matal len ujurakum seeni fay yawmal xiyaamati bés penci kenn ku nek dañ ko fay ay jëfam ba mu mat bu yàlla até ba nopi nak faman man faman fa ku sori leef safara wa udxila dugaleef ko aljanna kooku faqad faaza texe na yàlla nañu jàll boole nee na kum sori musal la ci safara dugal aljanna yow yaa am texe gu sax waaw nga déggee ci ne kan kum texee dil yóbbu safara yaa am texee di gu sax wamal xayaatu dunya de dund bu suufe bi illa mataaul xuróor ndara muy yóbbula la waru àdduna du dara ndax dara sa def fee saxu borom bi ne la tublawunna def na nattu leen fii amwaalikum ci seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan yàlla dana leen nattu ci seen alal seen alal di manque wala mu yàqu waaye dana leen nattu ci laaj leen seen alal joxe leen wa anfusikum di leen naq ci seeni bakkan léeg leen lu métti dal leen ngeen di wéradi di néew doole dana leen nattu it ci laaj leen seen bakkan jóg leen ngeen jihaad yi jàkkaarloog noonu yu la ëpp doole foofu gën laa bëri lim loolu yëpp ay nattu la yu yàlla nattoo jullit bi kon la na tublawunna fi amwalikum wa anfusikum day nattu gi day jëm ci alal yi lislaam di laaj inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum ak bakkan yi lislaam di laaj bu jihaad jotee waaye nattu gi day jëm ci yii gaar dund gi nit ki am jafe-jafe ci alalam wala mu am jafe-jafe ci aw yaramam wala ci ak njabootam wala tasmaunna da ngeen dégg min alladina utul kitaaba ci ñooñ nga xam ne joxeef na leen téere min qablikum njëkk leen da ngeen dégg ci yahudi yeeg nasraan yi wa min alladina ashraku ak ci mushrikoon yi way bokkaal yi adan wax ju ñaaw adan saaga lor kasiran gu bari dañ leen wax wax ju bon ju ne dañ leen tuumaal lu ne danañ leen xas danañ leen def lu ne ci xeetu wax yu ñaaw waye lool rek lañ man jigen nak lañ yadrukum illa adha ay saaga rek lañ len manal kon muñ len wayin tasbiro bu ngeen muñëwee wa tattaqu ngeen ragal yàlla fa inna dhalika nak muñ gogo ak ragal yàlla gi min azmi al umuri mi bok ci ndogu ngir yi wa fatlikul te fàttali if ba nga xamee ne axada jël na allahu yàlla misaaq alladina dëhalum ña nga xam ne uutu joxeef na leen bépp xaxdu boo xam dañ koo feddleeg ay ngëñ mooy tudd misaaq mooy dëxal kóllëre guñ faslante feddli ko lool ak i gëñ moom la yàlla jël ca ahlul kitab ngay bàyyi xel nag alquran saa buy wax ñin jox téere bi siixatil binaayi lil mafaul daa doon ñin jox téere ñu sàggane ko jëfuñ da leen téere digal da leen di ŋàññ da leen di tëkku di wax seenu ñaawteeku bu dee siyaxatul mabni lil faa'il nag muy aati naawmul kitaaba yatluunahu xaq tilaawati yi mooy ñu yàlla jox téere ñu jël ko jëfee ca ndigalam jëlee ca texe wa id aqasa allahu misaaqa alladina utul kitaab la tubayyinunna da ngeen ko leeral bi yàlla jëlee ko la gu dëgër ak ahlul kitaab ne leen loolu ngeen jàng xam ko ci téere bi mbaa da ngeen ko leeralal nit ñi du ngeen ko nëbbu la tubayyinunnahu linnaas da ngeen ko leeral leeralal nit ñi wala taktumunahu te du ngeen ko nëbbu ñu nangu loola waaye fa nabaduuhu ñu sànni miisaaq ba waraa zuhurihim ca gannaaw yi seen gannaaw weccee ko njariñal àdduna lu néew washtaraw ñu jëndee bihi samanan qalila njëggu néew intérêt yu ñàkk solo moo leen jaral wan ginnaaw dëggug yàlla gi nga xam ne moo leen waroon a may texe tayu ëllëg fa bi sa bon na maa la nga xam ne yashtaruna danañ ko jënd laa taxsibanna bul njortu alladina ña nga xam ne yafraxuuna dañuy bég bi ma ca la nga xam ne ataw dikkee nañ ko ba noppi wa yuxibuuna ñuy bëgg an yuxmadoo santeef leen bi ma ci loo xam ne lam yafaloo defuñ ko ñooñu falaa taxsibannahum bu leen njortu bi mafaatatin ñu nekk ci texe ak mucc ñu nekk ci mucc min azaabi ci mbugal wala hum ñeel leen azaabun alim mbugal mu metti ñii naafiq yi la aw nit lañu woon ca madina ñoo xam ne bu jullit ñi di dem xare rawat na xare bu war a metti ñu lay joxe ngànt toog bu ñu dem bu ñu leen gañee bu xare ba méttee ñuy kontaan ñun am nañ chance bu ñu demoon nangama nangam moo ñu dal yafraxuna bi ma ataw bu jullit ñi gañee indi màng mu nekk ndam nekk pugare ñu bëgg koo ndamoo waaye daal ñoom comme waa Madina gañe te ñoom di waa dëkk bi lañ bokk bokk ci ndam la yuhibbuna an yuhmadu bi ma lam yafalu waaw loolu feebar la bu bon bëgg a ndamoo loo xam ne yow du sa jëf ba léegi am na ñu muy dal di ndamoo jalooray kaneen nit ki lim war a ndamoo lim war a puugarewoo bu dee puugarewoo mooy ay jalooreem moom ak lim defal boppam waaye bu mu bokk mukk nag ñi nga xam ne yafraxoon dañuy bëgg bi ma ataw ci lañ dikkee ويحبون ان يبغ ان يحمدوا ان يسنت لين بما تي لو خامل لام يفعلوا دفنك ньоญو فلا تحسبنهم بلن جورت بما فاتت نيك تي اك موت من العذاب تي مبغل من وي فري ولهم نيل لين عذاب اليم بغل مطر ولله يالا رك لا نيل ملك السماوات غورك اسمان ي والارض اك غورك شوف والله تعالى قدير اجام كاتنا على كل شيء يالا موم كين موي كي من لب دارا تاوكو amut sax lu yomb lu jafé ci mom ay yi ci top nak ba sar wi jeex da delu wat di fatali ak di wote jeme ci tawhid wetal kennal yàlla di soññ doomu adama ci mu xol ci mbindeef ak kemtane yàlla yi man ci waru moo tax borom bi ne inna fi khalqis samaawaati nit yàlla yi dañu wax ne dafa am alkitaabul mastuur mooy téere bu ñu bind tere bi ngay jàng waye am alkitaabul manduur tere buñu xol moy mooy mbindeefi yàlla yep loolu xool jàdd na rek kitaab manzuur la inna fii xalqi samaawaati kon nit ñuy delloo ci alkitaabul manzuur nekk na ci bindug asamaan yi wal ardi ak suuf yi suuf yeeg ni ko yàlla bindeeg ni mu ko téye asamaan yi waxtilaafi layli ak wuuteeg guddi wa nahaari ak bëccëg duggante gi guddeeg bëccëg di duggante di wuutu wante guddi di ñëw ak lëndëmam bëccëg di dem ak leeram fu bëccëg demee guddi ñëw fu guddi demee bëccëg ñëw loolu nekk na ci la aayaatin ay kéemtaan yu bari ay kéemtaan yu rëy yu bari li ulil albaabi ñeel borom xel yi ñi ci mën a waaru ñi ci mën a xamee mooy ñi jëfandikoo seen xel alladina ñi nga xam ne yadkuruuna dañuy tudd allaha yàlla qiyaaman mbir mu ñuy way taxaw wa quudan ak mbir mu ñuy way toog wa ala junubihim ak mbir mu ñuy way tudd ci seen wet ñuy way tudd ak seen wet ñi nga xam dañuy tudd yàlla ala kulli xaalin bañ taxaweeg bañ toogeeg bañ tëddeeg ba ñuy dox ñu tudd yàlla loolu mooy xaalu tudd yàlla ci alquran moom lislaam da cee soññee bu baax a baax julit bi war koo taqoo ci mboolem xaal yi tudd gi yàlla ànd ak waye tafakkurun ñuy xalaat di xalaat fii xalq samaawaati ci binduk asamaan yi wal ard di xalaat ci binduk suuf yi xalaat ba moo leen di yóbbee natiijaab xalaat ba dañu naan rabbanaa yu suñu borom nga xam ne ñoom seen xalaat yemul ci li ñuy gis nii mujj leen yéem waaye dañuy xool ci doon bind li ak kéemtaan ak kàttan gi mu ko bindee moom lañuy ñuy yéem nga xam duñu yéemu ci mbindeef mi waaye aji bind mbindeef mi la ñuy moo tax ñu naan rabbanaa yu suñu borom maa xalaqta bindoo haada lii baatilan ngir ak neen lii bindoo ko te amul benn xikma bu ko waral bindoo ko abasan wala baatilan subhaanaka tudd naa sag sella subhaanaka soril naa la lépp lu yellul ci yow faqinaa fegal ñu yow yàlla azaaba naari mbugalum safara naan rabbanaa yow suñ borom innaka naka yow man képp ko xam ne tudd xili da nga dugal ko annaara safara faqad axzaytahu gàcceel nga ko gàcce toroxtaane mënta weesu ñu àtt la nga dem safara koo dugal safara gàcce wër na ko wet gu nekk wa maa li zaalimiina te dédd ñeel way tooñ yooyu di dugg safara min ansaarin ay ndimbal kon ñii xalaat <clears throat> ñii tudd yàlla di xalaat ci mbindeefam yi di ragal yàlla di ko ñaan gannaaw bi ñu seedee ne mbindeef yëpp yàlla bindul ko ngir neen naan rabbanaa yow borom inna naa naka nun sami'naa dégg nañ munaadiyan aji woote yunaadi koog dana woote lil imaani jëmee ci gëm dégg nañ ku ñuy woo jëmee ci tawxid wéetal la kennal la naan ñu ànd ee aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa aman naa ñu gëm rabbanaa yow suñu borom faxfir lanaa yàlla nag ñu jéggal dunubanaa suñuy bàkkaar wa kaffir yàlla na nga far an naa walis ñu sayyiaat naa suñuy ñaawteef wa tawaffanaa yàlla nag ñu faat maal abraari ànd ak way baax yi bu ñuy dund jaadu nañ dëkk ak way baax yi nañuy jaxasoog ñoom di xaritoog ñoom bu ñuy faatu nañ faatu ànd ak ñoom dëkk ak ñoom ca barzaq dëkk ak ñoom ca aljanna wa tawaffana ma al abrar rabbana yow suñu borom wa aat naa yàlla nañu dikkee maa la nga xam ne wa naa dëxal nga ñu ko xalaa rusulika ci say yonantu wala tuxzina te bul ñu gàcceel yowmal xiyaamati bés penc innaka naka yow yàlla laa tuxlifu doo wor al miaada dëxal loo wax rek loola ngay def doo war ab dëxal ñii yàlla da leen di nangul yàlla day nangu seen jëf ya commencé ca tudd yàlla yaag settantal ak di xalaat ci kéemtaani yàlla yi aay yu bari ci alquran woote na jëmee ci xalaat jëmee ci waaru jëmee ci settantal ci mbindeefu yàlla yeeg kéemtaan yi bind ci kaw suuf muy alkitaabul manduur tàmbalee ci sa bopp yow ku ne wara xalaat ci boppam ak mbindeef yi muy dundal ci kaw suuf li muy gis ak li muy dégg yépp moo borom bi ne fastajaaba wuyu na lahum ñe leen rabbuhum yàlla nangul na leen wuyu na leen seen ñaan ne leen an nii naka man laa udiu du ma sànq amala amilin jëfi aji jëf kum ci yéen aji jëf jooju min dakarin moo xam góor la aw unsa wala jigéen la ndax góor ak jigéen ci buntam digal yàlla yi ak tere yi ñoo ci tolloo li yàlla digal góor ñi la digal jigéen ñi digal jigéen ñi digal góor ñi lim leen tere la tere ñëpp baadukum ñenn ci yéen min baadin ñi ngi bàyyeekoo ci ñenn فالذين نيغا خامني هاجروا غداي نان واعرجوا جنف لين من ديارهم تي سين كريا واوذوا لورف لين في سبيلي تي سما يون وقاتلوا نقاع وقتلوا رايف لين لا اكفرن دنا فر عنهم ولسلين سيئاتهم تي نياوتين ولا أدخلنهم تدنا لين دوغل جنات اي الجنه تجري من تحتها الانهار sawaaban muy ab yool min indillaahi bu tukkee fa yàlla wallahu yàlla indahu nekk na fa moom dong xusnu sawaabi rafetuk yool rafetuk fay muy bégal way gàddaay yi ak ni gàddaay réyee ci lislaam ne ñi nga xam dañoo gàddaay dañ leen a génne seen i kër dañ leen a lor ci yoonu yàlla dañoo xeex ngir yàlla dañ leen a rey ngir yàlla maa leen di faral lépp loo xam ne rëcc rëcc la ñaawteef la bu ma sa jugee ci ñoom waaye maa leen dugal aljana yoo xam ne lépp xéewal dafa nekk gën gaa rafete fay gu bàyyi ko ci yàlla moo leen di ñeel delluwaat ne yonent bi laa yaxurannaka bu mu la war te buy wax ak yonent bi mi ngi wax ak xeet bi yëpp taqallubu alladina wëlbatiku ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ fil bilaadi ci réew yi yéeféer yi way weddi mooykat yàlla yi nga xam ne jekku nañu àdduna ci alal fu ñu bëgg a dem dem ñu ngi wëndeelu ci réew yëpp loolu bu mu la war de ndax loolu ñu nekk mataaxun koy wala xalilun bu tuuti dee ngi seen kanam màggat ak wéradéeg tële feebar lépp seen kanam kon mataaxun xalil summa topp ma waawum seen tàpp waaye mooy jahannamu wa bi sa aka bon almihaadu laltaay ba muy safara laakin waaye alladina taqaw alladina ñi nga xam ne ittaqaw ragal nañ rabboom seen borom ñoom lahum jannaatun tajri min taxtiha al anhaaru lahum ñeen leen jannaatun ay aljanna تجري dana daw min taxtiha ci ronam al anhaaru dex ya xaal dina woy bel lañ fiyaa ci aljana ya nuzulan muy ak nganale min andilaay gu bàyyi koo fa yàlla xéwalu aljana bët bu set muy doon xéwal yu bees man li gan guy door a wàcc tey ak nganale bu rëy wama te loolu nga xam ne andilaay nekk na fa yàlla xayrun moo gën lil abraari ñeel way baax yi am na ci xéwalu aljana maa andilaay la fa yàlla yiñ lay jox ci ay dex ak yépp ay misaal la ngir xamem loo jullit bi mën a góorgóorlu mën a wattandiku safaan bu koy teedu aljana waaye dëgg-dëgg xéwal aljana yàlla rek a xam wa inna min ahlil kitaabi naka am na ci ñoñ téere laman koo xam ne yuminu dana gëm billaahi wa inna min ahlil kitaabi man yuminu billaahi laa ngi ñëw ngir gën a fàttalil gën a dëgëral ahlul kitaab yii di weddi nekkul na ñoom ñëpp dañuy continuer weddi dana am ci ñoom ñu tuub te am na ñoom najaasi dugg nañ ci lislaam ak ñoom abdullah ibnu salaam no nekkoon ay kàngam ay foore ci ahlul kitaab kon wa inna min ahlil kitaabi la man yuminu billahi wa ma ak la xam ne unzila wàcceef na ko ci muhammad ilaykum mu jëm si ci yéen wa ma ak la nga xam ne unzila wàcceef woon na ko ca Muusa ak Isa ilayhim mu jëm ci ñoom muy tawraat ak khashi'ina di way torolu lillahi ñeel yalla ñom aduna jaralul len sen diine la yashurun duñ jende bi ayati la yasmanan khaylan Sen new sen intérêt du tax ñu wedd yàlla ke ñoon lahum ñeel len ajrum senu fay and rabbihim fa sen borom inna allaha nak yalla sarihul hisab aji gaaw hisab xisaab ben penc taxaway ba lamuy yag yag la hisab di nit minde fe di bari bari bari lolu lu gaaw la fi yalla ni yàggee ci yow nu ni raw lay gaawee ci borom bi inna laa sari'ul xisaab yaa ayyuha alladina amanu yéen gëm isbiru muñ leen isbiru mooy muñ leen leen di dal ci ay coona jafe-jafe yi ngeen di jànkuwanteel ngir topp yàlla naq ak musiba yi dal seen kaw muñ leen ko bokkul ak wasaabiru saabiru muy lii taxaw ci seen kanam lu mel ni jihaad ay noon yor seen i yi taxaw fas yéene rayante muñ muñ leen saabir moom day doon lu lu ne kët ne jonn nga jàkkaarloog moom xam ne dëgër ak defante rek moo la ciy génne ñu ne saabir bokkul ak isbir waraabitu fàndu leen fatt leen fépp fatt leen fépp bépp bunt boo xam ne yéeféer dana fa jaar ñëw di leen gaañ di leen lor tëj leen bunt yooyu garde leen ko ribaat wattaqu ragal leen allaha yàlla lii bu ngeen ko defee laallakum ndax lee yéen tuflixuuna da ngeen texe loolu mooy jeexuk suuratu ali imran aay yi ñu jeexalee borom bi fàttali na digle na lu jullit ñépp war a bàyyi xel war cee góorgóorlu mooy tudd yàlla ci làmmiñ ak ci xol tudd yàlla gu ànd ak di teewlu yàlla sadaqa allahu mawlana al azim